ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañu ko xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew bismillah lu bëri de fekk naa ni ma la wax ni 1952 laa jógee fii yóbbu ma ma Njaay Fatim gële ci ma dal fa jàng ma demee suma sëñ Alaaji ko demoo Alaaji Omar mu daan ñu jiital dañu màngu ñu ànd ak moom di doxee Kër Mandiaye ba Daaru Salaam dafa dem ay dibéer bu rato jotee ñu dem bu faru dugub jotee ñu dem bu nawet jotee ñu koy def ba nawet bay jeex ñoo moom loolu ba 1963 euh, laa door a jógee daara ñib si fii Paos bi ma ñëwee fekk yoon Daaru Salaam bii fekk fii kilifa yoo xam ne suma baay ak suma baay Saaluma Paos ak Daaru Paos ak Daaru yoon bi ci leen daan jaar di dem daaru at mu jotaan dañ ko xàll bu lolle dañoo yóbbu xàll ba daaru dëpp ñëpp si mu ñaan ñu dëpp ñëw ñoo moom ñoo moom man Amat Buri Omar Kan Bay Saaluma moo di Buri lay ba Amat Buri lay njaboot googu yëpp ñoo daan xànd di dem daaru di dem di ñëw ëpp nañ loolu ñoom ñu bari lañ xoon ci loolu lañ yaru ba bés tey ba ñu toll nii ñu toll rajo Mondaw te koo xam ne ku ñàkk caaxaan la dégg nga koo xam ne àdduna daf ko dëdd woon jox ko gannaaw complètement 1968 laa jógee fii ne bàyyi dama bëgg a dem ñaani wirdu Daaru Salaam mu ne ma loolu de baax na ma jógee fii teg ko sama saret dem daaru tombeel keroog alaaji ëlli moom fa njëkk a ñëw moom fa bëgg a ñëw ñu ngi ko fa mu ñëw siyaare si muy bésab julli weeru koor ma demee ñëw euh, bagage bi ma indi kër cinq kilo suukar laa jënd ak kilo guru ñu teg ci ñaar téeméer ne ko dama ñëw ñaan si wirdu mu teg ma ci yoon woo xam ne bi bésab tey bi wàccu ma ko ma mu ne ma bokki fan ma ne ko poos ko to naa na waa poos ana Amad Buri ana Saalu ana Mamad Jim ana Matar Kan ma ne ko ñu nga ñoom ñëpp ma ne ñu nga fa mu ne waaw mu ne waaw mu ne ba ngeen fi ñëwoon ma ne ko tey de ay ah, xewante daal naa ñëw ñaan si wirdu mu ne ma dee hmm, duñ doxoote ah man de daaw bëri na sama xel maa ci waaye tey la ko yàlla dogal mu ne ma ah ma ne waaw mu ne ndax sa ñaar ñooñu la ñu ngi fa am déet ma ne ko ah mu ne ma sa ñaar ñooñu ma ne ko sama ndey ak sama baay ma ne ko ñu ngi fa de ma mbaa yaa ngi ñoo ma ne ma ne ko ñoo ma jëlee seen tali moo ma jëlee ci daara ma ñib si soos ah ñooñu de ku leen am dara wéy la am dey toppatoo leen mandargaam caxe la am leen sagale nag mandargaam perte loolu de yàlla na ci yàlla musal ma ne ko amin mu ne ma ndax li ngay ñaan nii am nga ci ndigal ma ne ko sama de laa tàggu ma xebal mu ne ma ah, ma demal jàpp ma ne ko jàpp naa mu ma ah, waaw mu ne ma eh, jàpp nga ma ma dëkkal ma sukk dëkk mu ñaan tafli suma lo imali ka ñande mane lo ko so ko ngabe mom ngab na la so ko ngabudit mom ngab na la li gën nang ko ngab ana ko dana ko ngab pero te waccu mo te kudur fi mu delu ma rappelaat suma ndey ak suma baay boo maa nga jàngoo te suma nijaay càmmoyu noor bi di nawetu ci kër gi kër laa ba kii te mbiri oto yëpp ba ko ndax su ma toppee oto yi mën naa tardé lii ma wane ci suma ndey ak suma baay looloo taxoon ma dog suma daara yi maa ngi jógee daal wàcc naa bañ dellu de bëgg ci pelo ñaareel mm. sama bàyyi tële ma jógee daal. maanaam uh, toppatool sa ndey ak sa baay. waaw nga xam ne soo toppee oto yi. waaw uh, dana dem ba yow doom daam lu si raw. fa ma doon jàngee dañuy wax ne kii day dimbale wu doon dama doon pour dimbale ay kilifaam. fa demoon pour xam naa daal yàq njàngam. waajur la foor na trop. kere laa kiite man ba lépp topp sama waajur dara rëccul ma ci moom du ndey du baay dara rëccul ma ci moom ak tey man kenn la aw ma doomi ndey doomi ndey ju góor aw ma doomi baay ju góor man kenn kese la ak rakk yu jigéen loolu boo ko waxee ñoom keebaa nga tudd ñoom dañ ko xam bi maa ñëw ñoom ñoo ma tiim ca kaw waaye dem naa leen ba jàpp ñëpp jàpp ñëpp takku ak teel ak jom rek ak ndigalal bay la ñoom andaw wala ñoom andaw kenn melut ni moom. gannaaw loolu. Hmm. Euh, bi ñëwee si taxawaayu dëkk bi. Hmm. Euh, ñoom. Hmm. nan nga leen doon conseillé tey xale yi nga xamante ni tey jàpp nañ mhm. kët alaayo man mhm. ko jàppee yéen mag ñi yéen a tax mhm. yéen ñu wan yoon naka lañ ko gën a mën a téye ak naka lañ ko gën a mën a rafetale ah Pawos kay naka jekk ñoom Daaru Salaam ñoom dañ ko jàpp kilifa yëpp a ko jàppoon ñoom paalaam mati nag su lay mati xam nga sax moo amoon daayira bi moo ko amoon daanaka moo conseillé woon ñëpp bi mu fi jógee lañ ko jox élimanté am élimane bi mu fi jógee lañ ko jox Bakary loolu ñu jàpp ko ñu ko màggane ba bésab tey bi moo jur lii rajo man ndaw kenn melut ne moom xootu doon pour xalal xootu doon pour xaduna xootu doon pour dara yàlla yontu ba rek la doon la doon wax di digal ndaw na topp kilifaam jigéen na dem topp borom këram te te loolu daal man xam naa ko ci moom waaw mhm. jërëjëf kan gannaaw loolu ñu topp Omar Omar Sarr mi nga xamante ni moom it suñu mag ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew yi wala bitim réew